رضي ربنا مولانا سيدنا احمد ابو محمد التجاني وعن خليفته ووالي شيخ الاسلام مولانا الشيخ ابراهيم رضي الله عنه mbokki bi teew maa ngi nuyoo waaye nuyoo bi ma koy jubale ci suma sëriñ boo xam ne su ma ni sama sëriñ amul firi wala boo ma nee kan mooy sa sëriñ ba wax la ne mooy buntu sarale ci bàyyi dëgg la ba kaare day am kër yi de yaatu kurum kër gi day am buntu boo xam ne salale la foo ko dikkee dugg ci néeg bi loolu tey ci li ma xam sëriñ bii toog ak ñi mu yaay ñoo ko doon ci bàyyi ma firi ko teel muy koo xam ne boo ko dikkee ci baayam direct ci baay boo ko dikkee ci yaayam direct ci baay yomb nit mën naa nekk bunt ci yaay dem ci baay nit mën naa nekk bunt ci baay nga dem ci baay waaye de bunt ci baay direct bunt ci yaay direct yomb kooku mooy sama sëriñ bi toog muy Cheikh Mouhamadoul Habib loolu mooy lan baayam mooy Cheikh Ahmadou de ñaareelu doomu baay bu góor ci li liñ xam de xalifaam muy Cheikh Ahmadou amul la foo jàll yaayam mooy Seyda Dieynaba Niass doomu bàjjen Ndiaye mu bokk ak bàyyi iya, hmm? ndey ak bàyyi. mooy doomu bàyyi ci mahab. dëgg la. wax naa ya, ku ne yàgg dara ma ngeen lépp lu ngeen dégg ma ne la bàyyi nee te duur luñ bind ci këyit maa ko jëlee ci Cheikh Mamadou Khadim wax na ko léegi ci suñ kàngaale lu yàgg te moo ko dëgëral si ngoom li man mën a taqee boo ko tayee fu jël taq du taq te mën a taqee boo ko tayee fu dul ku ci suuf boo yëkkati mu jox. dëgg la de. suuf des fa mu loolu mooy lan mooy su ma kàngaaleeg moom ci moom la man fi moom laa mun na nga takk ci moom te ngi lay nuyu bu baax. moo ma wax ne bés fa tawar baay radiyallahu taala anhu moo ma wax mi ngi nii loolu xanaa amul amul amul kii yaa ma mu ne ko maam mu ne mu ne ko soññee bi doo ko defal fu nekk ni danga fay jógee ci àddina di ñëw di la seet nga nekk ci néegu gàtt bii maam tabaxal sa néeg mu ne bàyyi na teg ab biir ne ko Habib mu ne mu ne ko jaa ak jëddu ko li jabir gasi bi laaj bi naay xase waaw waaw parce que loolu fekkee wu ma ko mu ne ko bàyyi tabaxal seen néeg bi ndax mu méngoo ak sa dég-dég ak sa jëmm sa personnalité bàyyi nu teg ko yàgg mu ne ko Habib sa maam dafa ñëw pour jam tàng-tàng yi damm-damm yi waaye ñëw fii pour tabax ay sa sëñ ñu ngi am kontaan bu baax di la di ñaan yàlla mu guddal sa fan lool lii bàyyi waroon na mottali téeméeri ak Cheikh Ahmadou war koo mottali téeméeri ak ñaari mottali yal nañu ko yàlla booleel mottali teg ko ci li nga amako waxtu woo bëgg a jóg mën a jóg foo bëgg a dem mën a dem. nuyu yàlla moom. maa ngi nuyu cheikh yi wa xalifat yi. ndeysaan. donc yaakaar naa ne du dagg. loolu laa bëgg itam moom mu mayaat ma ko gannaaw bi ma ko sëriñ bi maye ba siyaare bu amoon fële ci jaxaw Saalum suñu mbokk taalibe suñu mbokk ci deret yónnee délégation mu ñëw doon la ko yëgal si fekkul la fa mu ñëw ci man ma ne ko xar si nga laa la xëyaloon balaa loolu moo tax nag guddee calaa nee nit sama kër baay samay rakk ne fa ma yónni fa bàyyi siise moom it loolu ko tere xel moo waral saa yi loolu daal mooy sama guddee Cheikh Abou Cheikh Ibrahim ngeen baal ma ci guddee gi ku war a dalal gan ñi boo yéexee war nga koo bal wax maa ngi nuyoo bu baax di sant di leen gërëm bu baax chaque ñu ñaanal Cheikh Mamadou Habib mii moo ma téye de waaye man mënuma koo téye waaw yal nañu ko yàlla fayal. yal nañu ko yàlla fayal. yal nañu ko yàlla fayal. allahumma salli ala sayyidina Muhammad